الماء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 bu ko defee kon tey xam na ñuy jéem a tàbbi ci liggéey bi rek eh, yenn ti laaj yoo xam ni rot na fi bàyyi ko ci mbokk yi tey suñu laaj bu ñu njëkk am mu jóge ci soxna Tuba Njaay ñu ngi koy seer bu baax a baax di ko ndokkeel di ko wax ne ko namm nañ la ci penc mi waaw xam naa jamono ju xat jéeg yooyu rek mu tabal fi ay laaj yu am solo moom nee na daal suba xëyee day wax day wax astaghfirullaha téeméeri yoon subhanallahi téeméeri yoon alhamdulillahi téeméeri yoon laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi téeméeri yoon waaye tamit julli ci yonante bi téeméeri yoon mu ne nag moom bi mu koy def dafa am koo xam ne kaal da ah, du noonu waroo koy defe noonu muy laaj ba xam moom kon nan lay def waaw loolu de soxna si moom loolu ngay def bés bu nekk de lu ama am solo la te it baat yooyu ngay tudd di ko defab lim bés bu nekk itam ñu ne la du noonu ñun de moom maanaam sunu gëstu wax dëgg yàlla ñu na maanaam ñu mën a randal loolu wala ñu mënu koo dindi loolu ngay def daal moom lañ la ci wax mooy lu baax la lu am solo la lu rëy rëy la loo xam ne lii loo ci mën a def bés bu nekk euh, da lay defal tawfiix rek di la yokk di la euh, génne ci jafe-jafe yi di la defal ak leer di la yombalal say mbir waaye bi nag noonu nga koy defe moom ñu ne la maanaam waroo ko defe noonu maanaam loolu moom wax dëgg yàlla amaguñ ci benn tegtal loolu daal ñun dal na ci soññu ci bés boo ko mën a defee loo ci mën a yokk rek nga di ko def moom day gën di baax rek waaye jëm yi waroo ko defee noonu daal wax dëgg yàlla moom xanaa ñu gën a defaat gëstu bu baax waaye waaye dëgg dëgg yi tegu ci yoon gi daal moom ñun moom mënaguñ cee d'accord daal ndax gisaguñ ko fenn te yi ngay wax ni moom amul benn limite maanaam ab lim boo xam ne bi dañ naa ne war nga cee yem wala danga koy def bis sàngam bàyyi ko bés sàng wala da koy wax waxtu sàngam waaye saa bu la jàppandee ma nga mën koo def rek lu ama am solo lu rëy rëy la loo xam ne lii euh, tawfiix rek la la ci yàlla defal waaw kon xam naa loolu dana man li ma la ci sant mooy nga gën koo jàpp gën koo dëgëral gën koo fonk te loo ci mën a yokk rek nga yokk ko te sellal ko te yàlla rek tax nga di ko def bu ko defee nag amul bés amul waxtu amul semaine amul weer saa la jàpp ne da nga mën ko def loo ci mën a def rek doyut jërëjëf. beneen laaj bi ci topp wala yeneen laaj yi ci topp suñu xaadim njëng moo ko fi rotal moom itam di laaj ma xukumu tanziyati ahlil kitaab day laaj maanaam ñi nga xam ne ñii eh, ay boroomi téere lañu maanaam nga xam ne ay chrétien lañu wala ñu bokk feneen ci diine joo xam ne ji daal du diine lislaam waaye am nañu ay téere ndax ñoo ne ne su ab julit sañ nay sëq ñoom ab jaalante comme ku wàññeeku ci ñoom nga dem di leen jaal ji loolu te itam liñ ko fi tontu mooy liñ ci def ab gëstu daal jàng ko ci fiqh yi mooy ixtalafa ahlul ilmi fi zalika ala aqwalin asaxuha annahu yajuzu taaziyatu ahlil kitab xayril xarbiyina fi mawtahum li xawlihi taala laa yanhaakum allahu an allazina lam yuxaatilukum fi ddiini walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarru an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina dañ ko naan euh, euh, jaalante séq am jaalante ak ñi nga xam ne ñi ahlul kitaabi dalaal boroom xam-xam yi dañ cee wuute lool wax ci ay wax yu bari nag ñu baree bari ak nañ ko gisee waaye nag ñun wax jiñ ci gëstu li ci gën a wér daal mooy loolu maanaam lu dagal la ci diggante jullit bi ak kooku nga xam ne kii doonutab jullit waaye dañoo séq jàmm nga xam ne duñ leen song di xeex ak ñoom wala ñuy noonoo ak ñoom wala ñu leen di sàkkal menn pexey daal bu fekkee noonu la ñu mel ak yéen nga xam ne jàmm rek ngeen seq suñu faatulee mën ngaa dem jaali ji leen ndax yàlla daf ne laa yanhaakumullahu anil lazina lam yuxaadilukum fi diin yàlla terew leen ngeen di maslaa ak seq ak jàmm ñi nga xam ne ñi du ñuy ay jullit waaye xeexu ak yéen di leen xeex ci seen diine wala mu yuxrijukum min diyaarikum te it duñ leen songu di leen génn ci seeni kër ne ne yàlla terew leen an tabarruhum gis nga ji maanaam ngeen seq ñoom lu baax seq ñoom eh, ay teraanga yooyu ak seq ñoom jàmm ak seq ak boobu nga xam ne bii da ngeen koy def waaye nam wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin kon liit liñ ci sukkandiku ci ne mën naa nekk maanaam jéem ak wuute da cee am man moom li may tontu ñaare bu fekkee ne ak wuute dafa dama cay seet la nga xam ne moom la ca imam Malik wax waanaam ñoom ñoñ Malik su fekkee ne ak wuute dafa am itam bu fekkee ni euh, waa Malikiya wax nañ ca dara man damay jël wax jooja teg ko te fii ne ne wa haza mazhabu shafiyati wal malikiyati wal xanafiyati ne ne lii mu wax ne nag maanaam ñoom mën ngaa sax ñoom am jaalante ne ne mazhabu shaafi yi ne mën naa nekk mazhabul malikiya ne ne mën naa nekk mazhabul xanafiya itam ne nañu mën naa nekk kon foofu lañ koy sukkandiku rek ci ne mën nañuy jaaranteeg ñoom bu fekkee ni nee lañ demee dañoo séq jàmm nekk nag waaye nag dane walakin yuntafa aw yuntaxa min al alfazi fi taasiyatim ma yaxsulu bihi tasliyatuhum duna suali thawaabi lahum awil ajri ala musibatihim ne na nag boo leen di jaale ji moom dafa am ay charte yoo xam ni maanaam moom nga war a jaalante ak ñoom mooy boo demee la nga fay wax ci wax joo xam ne ji maanaam da dem di leen jaale ji ne na doon loo xam ne lii lu leen di defal la waaye nag maanaam doo leen ñaanal yàlla defal leen ab yool doo leen ñaan yàlla jéggal leen bu fekkee ni ku faatu ko la daal ne boo fa demee doo ñaan yàlla jéggal ko doo ñaan yàlla yërëm ko waaye nag bu dee ni ñay dund la itam la nga leen di war a ñaanal bu fekkee da nga leen bëgg a ñaanal mooy nga ñaanal leen yàlla gind leen ñu dugg ci lislaam maanaam ñu doon ñoo xam ne ñii ñu jub ndax ne bu fekkee ne da leen da dem ka faatu ci ñoom nga di ko ñaanal njéggal ak yàlla wala yool boo xam ne bii danga koy ñaan ngir yàlla may ko ko kon dangay ngay bëgg a wuuteeg li nga xam ne lii moom la yàlla def dogal ko ci ñoom ndax na ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuuran ñooñu nga xam ne ñi ahlu kitaab yi la ne ne amuñu ab yool fa yàlla amuñu ak fay fa yàlla waaye itam amuñu yërmande fa yàlla kon ne ne aaya bi dafay wax ne ñoom lépp loo xam ni def nañ ko ci lu baax rek su ëllëxira dañ koy jal bañ di ca yaakaar ne dañ cay jot ñu def ko pënd euh, daal di koy ëf mu daal di naaw dem kon na ne fala yad'u li kaafirin xayin bil ajri ne ne bu fekkee ni ab yéefar la do bokk ci ëllul kitaab yi ne boo ko ñaanal doo ko ñaanal ci gis muy def lu baax nga di ko ci ñaanal mu am ci ab yoon wala li kaafirin mayitin bil yi ne itam ku bokk ci ñoom ñooñu su faatoo waroo koo ñaanal yàlla mu koy jéggal ndax yàlla dafay wax ne maa kaana linnabii wallazina amanu an yastaxfiru lil mushrikina walaw kaanu uli xurba min baadi ma tabayyana lahumu annahum ashaabul jahim dane yonente yow muhammad ak ñi nga xam ne ñi gëm nañu la noo doon ay jullit maanaam sañu leen jéggulu ñi nga xam ne ñii ay bokkaalekati yàlla lañu donte dañoo doon seen mbokk yoo xam ne yii yu leen jege la ginnaaw bi mu leereel ne ñoom kat bu ñu faatoo euh, sawra lañu jëm. kon ñooñu daal may nañ la ci maslaa boo xam ne bi jëm da ngeen a seq jàmm bu kenn faatoo ñoom nga dem defal leen waaye daal doo leen ñaanal ñaan goo xam ne gi ñaan yàlla defal leen may leen ab yoon walla yàlla jégg leen bu ko defee itam. ba tey bi ci desaat it daanaka mooy boobu rek ak duwaawu li mayitin min ahlil kitaab maanaam waxaale naa ko fee rek nee na la fee maanaam ahlul kitaab yi ku ca faatu kenn waru koo ñaanal yàlla maanaam mu di ko jéggal walla mu di ko yërëm ndax ne ne falaa yajuusu taraxumu alayhi awi duwaawu bil maxfirati awi rahmati ñooñu kenn du leen ñaanal yàlla yërëm leen wala yàlla di leen jéggal ndax euh, liñ doon dund fii ci euh, àll àddina ne ne li anna allah xakama alayhi bil xuludi fi yi ne ñooñu moom yàlla atte na ne ku ci faatu ci noonu nga xam ne nii noonu nga faatoo loola euh, yéefar maanaam bokkoo ci lislaam ne moom ñoom waa sawra lañu kon ne ne wat doox maxfirati wa rahmati huwa li taxyiiri xadaa illaahi ne kon boo leen di ñaanal yàlla yërëm leen wala jéggaleen dafay mel ni kon yow da ngay sàkku yàlla euh, wëlbati maanaam soppi atte bi nga xam ne bii moom la atte woon ci ñoom te loolu du ko comme ni mu ko waxoon fee rek mooy laaj ñaari laaj yi dañu duggante maa kaana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim te nag waye jusu adduaa lahum bil hidayati ila islaam islam fi duniyahum li anna nabia sallallahu alayhi wa sallam kaana yaddu lahum bil hidayati ne nag may nañ la nga ñaan yàlla gindi leen di dugg ci lislaam ci jamono ji ñuy dund waaye bu ñu faatu daal kenn du leen ñaanal yërmaande kenn du leen ñaanal yàlla jéggal leen waaye itam mën nañoo dem di e, jaalante ak ñoom njaalante moo xam ne nii e, dëfal leen lay doon ak masala lay doon waaye tamit duñ leen ñaanal ba tey njëggal ga ak yërmande ja yeneen laaj yi ci topp sëñ Mbay Jaañ moo ko fi rotal moom itam day laaj xukmu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam salaati maanaam atteb ki nga xam ne kii daa nekk ci biir ak julli dégg ñu tudd tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu julli ci moom lay laaj lool luy atte ba loolu it dañ ko ciy waxaat loo xam ne lii lu ñu mayala nit ki mën na koo def bu ñu delloo ci ngiram imam malik ak imam ashafii yi dana sahaba shafiatu ila anna man samia asna asalaati isma muhammadin sallallahu alayhi aw xara a ayatan ismuhu sallallahu alayhi wa sallam nudiba salaatu alayhi ne waa Shaafi yi ne nañu képp koo xam ne kii danga nga dégg ci sa biir ak julli ñu tudd turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga jàng aay boo xam ne bi dañ caa tudd turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam may nañ la maanaam sopp nañu nga julli ci moom ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñoom fi ñu ko sukkandikoo dafa wax ne al baxilu man zukirtu indahu falam yusalli alayhi Seydina Muhammad dafa wax ne am nay dëgg-dëgg daal mooy koo xam ne ki dégg na ñu tudd sama tur te julliwut ci man gis nga kon jéem noonu la ko waxee te maanaam xaajalewul julli gi wenn waxtu la doon nee na ku dégg sama tur rek ñu tudd ko te julli woo ci ma rek na ne yow ko yaay ki nga xam ne kii da nay kon loolu tax ñu ne kon daal fu la mën a fekk rek bu dee ci julli la may nañ la sopp nañu nga julli ci moom bu dut ci biir ak julli itam may nañ la nga julli ci moom ne fi ba tey waa malikiya ne ne wa tajuusu salaatu alayhi fi haazihil xaalati indal malikiyati ne waa ahlu malik yi tamit danañ ñoom maanaam may nañ la dagan nañ la sax ñoom la wax dagan ñee dañ ne sopp nañ ko bu dee Shaafi'i ya la bu dee waa imam malik moom dañ ne dagan na may nañ la maanaam nga julli ci moom sa biir julli googu wa takkuunu siran ne nag bu ko defee soo julli ci moom nga yàllu ko ma adamin hectare min ha tayit maanaam julli ga nga bañ koo bañ a baril beneen laajam bi ci dress it ba tey daanaka moog boobu ñooyu rek muy xawlu bala fi salaati inda qiraatil imam alaysa allahu bi ahkamil hakimin comme lu mel ni suratu ciin boo demee ba ca mujj mujjantal ga yàlla dafay wax alaysa allahu bi ahkamil hakimin mel ni dafay laaj ne ndax yàlla nekkul ki nga xam ne kii moo gën a xereñ ñëpp moo dàq àtte ñëpp mel ni dafa def laaj léegi nag ne ne dañu fa gis ne dañ ne am na ñoo xam ne dañuy wax balaa foofee la ñu wax waaw loolu kay maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle ne ko dane ko koo xam ne kii jàng suratu tiin ba àgg ca alaysa allahu bi ahkamil haakimiina ja da nga war a wax balaa keneen ku ko dégg itam bu fekkee ne da nga koy biral ma ne ne da ngay wax balaa ndax ne ne wax jooju ne ne lahu dalilun fa min al ulama yi man yara anal musalliya yaqulu zalika fi salaati imaman kaana aw ma'muman aw munfaridan ne ne am xam-xam yi ñoo xam ne ne nañu daal kiy julli soo àggee foofu maanaam moo xam imaam la wala kuñu ñu jiite la wala muy julli moom dong daal maanaam may nañ ko maanaam mu wax baatab balaa boobu liñ ci tegtaloo nag wane ne wa dalilu zalika ma rawahu abu dawud xaala kan rajulun yusalli fawqa baytihi nee na am na waajoo xam ne ji daal bu laa julli ci këram wa isa kaana yaqra'u alaysa zalika bi xaadirin ala an yuhyal mawta bu dee jàng alxuraan ba àgg ci aay bi mu di wax ne alaysa zalika bi xaadirin ala an yuhyal mawta mel ni ab laaj la fi yàlla def ndax yàlla mi nga xam ne mi mën naa dundal maanaam bu demee ba rey nit ki di ko dekkalaat ndax nekkut koo xam ne kii mën naa dekkalaat ñi nga xam ne dañoo faatu mel ni dafa defab laaj ne su boobaa may na la ne ne waaju su daa julli ba agsi ci dana subhanaka balaa dana maa maa ngi tudd yàlla sell ak yàlla aha kay loolu kay lu mën a nekk la ne ne waajooju di wax loolu ñu dégg ko ci ñoom fa saaluhu an zalika fa xaala ñu laaj ko ko nag waaye lii ngay wax nii ci balaa ji ci boo jàngee aay bi yow foo ko teg mu ne samituhu min rasulillahi ne leen lii may wax nii ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa ko déggee teyit ne wa warada fi hadisin an abi hurayrata am na xadis boo xam ne bii abi hurayrata mi ngi koy nettali ne ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ne man minkum bi wa tiini fantaha ilaa laysa allahu bi akamil fal yaqul balaa wa ana ala zalika min ashahidin ne ne abu hurayra am na xaadis boo xam ne ne ne seydina muhammad nee ne képp koo xam ne ki yaa ngi jàng suuratu tiin ba àgg ci alaysa allahu bi ahkamil hakimina nay wax balaa wa ana ala zalika min ashahidin kon eh, wax eh, julli ci yonente bi ci biir ak julli ak it wax eh, balaa ci biir ak julli ci aay yooyu boo ci àggee loolu lu ñu may la loo xam ne lii mënees na koo def beneen laajam bi ci topp ne day dégg ñuy wax lu baree bari ci màndargaam bés bi maanaam mujj mujjug jamono muy am wax ju ci gën a ju siiw joo xam ne ji dañ koy wax lu baree bari mooy dañ noonu yonente bi sallallahu alayhi wasallam danoon ida makastu fi xabri alfay amin tentahil xayatu dunia al saahihun am la dañ ne yonente bi ne ne bu tëdd lu mat ñaari junni at ci bàmmeelam wala boog bu ca tëddee ñaari junni at rek maanaam ca la àdduna di jeexe mu ne ndax loolu wér na wala déet loolu daal xam naa lañ ko cay jëkk a wax mooy loolu moom amuñu ci benn dalil boo xam ne bii lu wér la ne yonente bee ko wax te it mu nu jàng yeneti aaya alxuraan yi ak it eh, yeneti yi nga xam ne jëlee nañ ko ci Seydina Muhammad dañuy gis na loolu moom lu dàpp la lu nekkut la ndaxte bu fekkee ne lu nekk la yenn te ay yi nga xam ne moom lañ jàng ci alxuraan am na nu mu ko waxee noo xam ne ni da koo dindi waaye tamit am na ñëpp boo xam ne bii buñ ko jàngee fii dinañ xam ne kon uh, at yooyu ñuy wax ne moom la yonente bi noonu bu ko tëddee àdduna tukki kon loolu du wax joo xam ne ji ju wér la ndax ne ne fii xaalallahu taala yasalu kon naasu anis saati xul innama ilmuha indallahi wama yudrika la saata takunu xariban aay bi dafay wax ne yàlla dafay wax ne yow Muhammad nit ñi dañ la laaj kañ la bés penc di am ne ne buñ la ko laajee na leen wax ne leen xam-xamab kañ la bés penc di taxaw daal eh, yàlla rek moo ko xam moom mi nga xam ne mii mooy boroom mbir yi kon yaakaar naa su fekkan ni ñaar téeméer wala ñaari junni at yee ñu waxan ne bu ko tëddee adduna tukki bu fekkee ni loolu lu wér la kon yaakaar naa aaya bi kon nii ko yàlla waxe nii ne ko dinañ la laaj kañ la bés penc taxaw waaye bu ñu la ko laajee neel yàlla moo xam loolu kon bu fekkee ni loolu nekk na yaakaar naa aaya bi du mën a tëra nii bu ko defee bokk na ci ay xaddis yoo xam ne yii euh, wérarut loolu maanaam da koo dindi da koo weddi mooy wa min al ahadis dallati ala anna waxta saati laa yaalamuhu illa allah xadisu jibril al mashhur wa fihi anna nabiya xaala li jibril lama saalahu an saati mal masul anha bi alama min asaail dañu jàng ay xadis yu bari yu wéri wéri yoo xam ne yi day teggi wax jooju da koy dindi bi ci gën a siiw nag mooy xadis ab jibril bi nga xam ne bii bi jibril alayhi salaam mu ñëwee ci yonante bi Euh, fekk ko fi saxaaba yi noonu mu di ko laaj ay laaj yu bari yooyu mu ko doon laaj ba ëgg si ñu ne ko nag euh, mata mu saaxa kañ la bés penc di taxaw moom Jibril mu laaj ko Seydina Muhammad Seydina Muhammad da ko ne mal masul anha bi alama mina saa'ili boobu laaj nag moom ki ñu koy laaj maanaam ëpp ci xam-xam ki nga xam ne kii moo koy laaj maanaam da ko wax ne ko loolu moom wax dëgg yàlla awma ci xam-xam su ko defee kon boobu ko Jibril laaj itam ne ko kon kañ la bés penc di taxaw bu fekkee ni ñaari junni at yee ñu wax lu wér la kon da ko naan su ma nekkee ci sama bàmmeel ba am fa ñaari junni at rek àdduna ren tukki waaye da ko ne boobu laaj moom ki ñu koy laaj gënu koo xam ki nga xam ne kii moo koy laaj waxaala taala laa taatiikum illaa baxtatan tey gis nga mu ni jàng ay yu baree bari ci alxuraan fii yàlla ne ne bés penc moom du leen ñëw ci lu dut ak mbetteel te bu fekkan ni xam nañ ne yonente bi bu tëddee ñaari junni at àdduna tukki kon maanaam bés penc dootu nu bett te yàlla ne ne laa taatiikum illaa baxtatan bés penc daal du leen dikk lu dut ci ak mbetteel su ko defee euh, falam yathbut fi xadisin an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu xaddada waxta saati bi muddatin maxsuratin ne na daal amul fenn foo xam ne fi sax na fa cib xaddis boo xam ne bi jëlee nañ ko yonte mu wér mu wér doon bu wér boo xam ne bii yonente ba da ca wax ne daal maanaam euh, bu ñu amee nangami at bis penc dina taxaw ne amul benn xadis boo xam ne bii gis nañ ko ci xadis yi nga xam ne yii moom la sayyidina Muhammad rotal wa innama dakara shay'an min ashratiha wa amaratiha wa alamatiha li wér wu daal mooy dafa ne sayyidina Muhammad moom li mu wax ci mbiri alaxira bés penc mooy tuddal na ko ay charte yoo xam ne bu amee yoo xam ne jege na waaye ak ay màndarga yoo xam ne itam dañ cee mën a tegtaloo xam ne lii moom ci mandargaay bis pénc la bokk kon jëmmi ñaari junni at yooyu daal wax dëgg yàlla bu nuy jàng aay yi ak xaddis yooyu nga xam ne moom la na Muhammad wax dañuy gis ne kon wax jooju daal nekkut lu wér yal na yàlla doolee defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë